mbokki internet de mi de ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi am mbégte jàkkaarloo ak yéen ci altine 8 octobre bi 2018 ci contexte goo xamante ni wax dëgg fa euh, xaw na triste ndax mu ngi jóge ci week boo xamante ni doon na woo xam ne askanu Sénégal du ko gaaw a fàtte yéen a ngi ànd ak seen chronique jantal mara tey nag mu ngi fas yéene jagleel benn jotaayu hommage. ci soxna su tedd googee nga xamante ni moo fi jóge ndax maa ngi koy wax léegi jóge nañ ci week woo xam ne dafa triste dafa macabre muy soxna Zeynab Fall soxna Zeynab Fall nekkoon prêcheuse en même temps doon animé émission fële ca DTV émission boobu nu duppeekoon dénkaane ay ndénkaane yoo xam ne moom la baaxoon daan defal askanu Sénégal ak àddina ñi koy seetaan ngir mën a jëriñ seen bopp fii jëriñ seen bopp fa nu jëm mu di soxna soo xam ne yeneen koy seen noonu ci image yi wax dëgg fa yàlla ñu fàttali leen yenn ci ay kàddoom rek ci vidéo ngeen gis ko noonu. xolal Mariam fawul ci yenn saa moo tax mu jur ku baax ñu naan ko Insa pour wax la ni yaay mooy ki nga xam ne day préparer doomam avant muy ñëw ci société bi daf koy baleel fu muy leeralal ko yoon bi nga xam ne foofu lay jaar ndax yaay moom mooy ravitaaye doom pour mu nàmp biiram fees mais moo koy ravitaaye ay jikko. moom soxna si xam ne daan woot nit ñi ci lu baax. ak it di leen wottandikuloo la nga xam ne yàlla bugg ko voilà mu nekkoon soxna soo xam ne suñuy seede ci moom du mën a bëri waaye yaakaar naa ne ñu jugg ci YouTube bi mbaa ñi seetaan télé démb ak barki démb mbaa déglu information yi la ci gënoon am solo ci seede muy kàddu boroom këram Serigne Samba Sarr dégg ngeen kàddu sedd ya mu defal soxna si waaye dafa fekk ne nag àddina moo tëddee noonu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun duñu jugee ci yàlla te itam ci moom la ñuy dellu toogul benn place boo xam ne bii lu dul sama tur def ko def saar nee na toogul benn place lu dul ne turam daf koo def saar daf ko doon tari daf ko doon tari te loolu du woon man mais mbaaxam la te nee na loolu nekkuloon jëmmam ji waaye mbaaxub Zeyna Fall la woon xanaa rek dundam daf ñuy jàngal lu bari ndeem ñun ñi moom danoo baaxoo danoo baaxoo necc yi nga xamante ni wax dëgg fa la Euh, dafay xaw a doy waar dafay xaw a doy waar ñu war a yi ci dundam lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ngir xoolaat suñu bopp ngir tegaat suñu tànk fi mu ko war a teg waaye doomu aadama ngi noonu moom dafay gaaw a fàtte wax dëgg fa yàlla waaye nag soxna si moom euh, defe naa ne dundam dundam doonu lu nuy gaaw a fàtte ndax elle est née 1980 euh, dem 2018 maanaam dañuy wax ne 38 ans la dund. waaye ñuy jàngee ni toujours la borom xam-xam ba doon wax naan la valeur de l'homme euh, bu ko defee moom jotewul dara ak euh, nombre d'années gis nga âge yi gàtt na lool ci lim 38 ans waaye da ngay gis ni euh, la tubaab ba di wax rek la valeur de l'homme n'atteint point le nombre des années donc nu koy jaale borom këram di ko jaale ay mbokkam di ko jaale waa këram di ko jàlle askanu Sénégal di wax ni ñun nekk ci presse bi ci média yeeg euh, wàllum taskat tas tas xibaar euh, nu ngi nu ngi compatir ci douleur famille am nu ngi ànd ak famille bi euh, loolee nga xam ne moom moo leen dal waaye dafa fekk ni ndee moom da def kon jullit te yàggul dara ndeysaan bi mu ñibbisee màkka am ñu ne xëy dafa tawatoon tawat googu moo moo ko xaw a tegoon coono waaye àddinaa ni mel te dee moom nu ne lay ñëwi nu ngi nu ngi koy masaw daal njabootam di ko masaw borom këram di ko masaw askanu Sénégal di wax ni yàlla na yàlla yokk leeram taas nu barkeem taxare ko aljanne gën a kawe aljanne gën te yàlla dimbali nu nu mën a topp ay njàngam mën a topp ay diglem ya nga xamante ni moom daan na ko woote moom soxna Zeynab Fall ngeen dellu di ko gisaat noonu ci image yi wax ne doon na lu triste xanaa rek taxaw seetlu wun ci mën a def ci chronique gu tey bi mooy euh, moom dafa rejoindre suñu philosophie cronique ndax ñun ne nu koy waxee saa su ne lan tax a jug mooy lépp la nga xamante ni dafay jëmale askanu Sénégal kanam dafay jëmale doomu aadama kanam dafay defar dund nun daanu ci bay suñu waar lu baax fa mu nekk nu indi ko def ci taxaw seetlu partage ko ak askan Sénégal ñiy seetaan xooluñu ku nu mere xool xoolunu ko nu bëgg xoolunu ko nu bañ la nu amal solo moom mooy la nga xamante ne dafay jëriñ nu proposé nañ ko def ci taxaw seet lu bokk ko ak yéen ndax man loolu laa jàpp ne moom mooy contribution bi gën ci contribution yi wax dëgg fa waaye bëri na xew-xew yi am dañ koy fësal di ko yaatal te fekk nu yokkuwunu wàññiwunu ku ne ci ñun ñu lii sa matadi wala luy sa mbon téye ko yemale ko ci sa bopp yemale ko ci sa ëtt yemale ko ci sa kër waaye fii di penc mi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk booy woote wooteel loo xamante ni wax dëgg fa li soxna Zeynab am ni bu ëllëgee boo fi jógee daa ko mën a am ndax tey koo xam ne bi mu demee kilifa yu jooy toute une population ñëpp triste am lu leen métti ngir demam ndax njëriñ gi nga xamante ni moom amaloon na ko doomu aadama yi ci dundam koo xam ne taxawal école di jàngale alxuraan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni ki gën ci yéen mooy ka nga xamante ni dafay jàng alxuraan ba pare di ko jàngale ma dégg démb ndeysaan ci témoignage yi am na koo xam ne dafa dëggal ni moom sax amul woon moyen ya mu fayalee doomam ca école coranique ba nga xamante ni moom la Seynab soxna Zeynab daan jàngale waaye teewul soxna si dàqul doomam te jàngal na ko alxuraan ba mu mokkal te amul woon moyen kon kooku yàllaa ko taxoon a jóg yàllaa ko taxoon a euh, Euh, maanaam yàllaa ko taxoon di def ay jëfum hmm? taxaw seetlu bi mooy lan dangay gis ni da ngay jàngee ci dundam baax rek am solo ak bonne œuvre li yàlla wax naan maanaam il faut que doomu aadama yi di investir ci champ wu bonne œuvre yi ndax boo ëllëgee fi mu ne nii boo fi newul it nit ñi fàttaliku la waaye fàttaliku lan ci lu positif ci lu baax ndax soxna Zeynab mi fi mu ne nii gis nga askanu Sénégal ñoom ñëpp tristesse gi leen dal ak méttit ga leen dal ci demam ndax lan ñu bari soppi na leen ñu bari tey tax na leen nu jóge ci ay zulumaat ñoo tey ci ay nuur ci ay leer ñu bëri taxaw na leen tey ci seen dund rawatina li gën ci kaw suuf ginnaaw yonent bi salaa sallam muy alxuraan nga xamante ni kàddoom dafa yemut ak lenn mu fexe ay doomu aadama mokkal alxuraan di kàdduk suñu borom wax dëgg fa yàlla defe naa ni soxna suusu li nu bëgg wax ci moom bëri na taxaw seetlu gën a bëgg a def ci ay œuvre am bëri na lool lool lool lool lool lool lool lool lool waaye dafa fekk ni temps bi dee xat lool ngir mën a yaatal ci ay mbiram waaye ngir tënk rek ngir tënk rek nu wax ni doonoon na soxna soo xam ne ñun ñëpp amoon ci moom estime ndax man moom damaa bokk ci ñoo xam ne duñu sori ci ay témoignages la ma xamul mbaa gëmuma ko man duma ko wax waaye seede doy na ay kàddu borom këram la mu wax ci moom yal na yàlla sàmm borom këram sàmm askanu Sénégal loolu nekkoon tënk goo xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a def rek ci soxna seena leen bu ko defee euh, bu ñuy jógee ci loolu ci hommage googu nga xam ne bëgg nañ ko defar soxna Zeynab dañuy ñëw rek ci même week bi euh, décès bu doy waar woo xam ne jaaxal na askanu Sénégal ñaari dese sax laay wax benn bi moom mooy euh, chef de chef douanier boobu ngeen di gis ci image yi ñu ne dañu ko fekk mu faatu ci otam fetel bi tege ci boor ay enquête ubbeeku na ba commencé nañu wax ni soxnaam menacé woon na ko ñii ne affaire wujjóog affaire jigéen nag am méttit woo xam ne moom xëy na amoon na ko à l'endroit de son mari demaat nañ ne indi beneen thèse ñu ne moom dafa fay jardinier bi ñoom ñaar nu comploté ba def li ñuy def waaye loolee yëpp. tey nit ki faatu bakkanam dem mu mel ni dañuy wax ni moom moo xaw a perte tey coow laa ngi ne kur waaw ma bëgg laaj accusé wu ma kenn euh, fi enquette gi taxaw rek ak li ñu jot a gu ci njàngat googu laay déparé rek di leen laaj ndax ana lu fi jar yenn yi ana lu fi jar yenn yi hmm? ana lu fi jar yenn yi hmm? ana lu fi jar yenn yi ci ci jëf ju ñaaw jooje tey kenn mun la wax ni moom moo faat boppam walla dañ ko faat waaw kenn mënu la wax ni moom faat boppam wala moom dañ ko faat thèse yi bëri na xalaat yi ñu ngi circuler fan la culpabilité bi féete mbiree ngi ci loxo justice ñu ngi doxal waaye taxaw seetlu gi ñu ci bëgg a def rek moom mooy jif yi mel ni wax dëgg fa yàlla war na mën a jeex ci askanu Sénégal booy bon moom bonal ci sa bopp rek tayamale ko ci sa bopp wax dëgg fa yàlla te itam boo amee loolu la métti mbaa nga am ay nakar am na neneen noo koy faje am na neneen noo koy lijjanti waaye du ci rey nit mbaa yóbbu bakkanu doomu aadama ndax ci même ordre d'idée bi sax amaan na beneen meurtre ci soxna soosee nga xam ne responsable passif la moom Ousmane Sonko ko defee soxna si ngeen di gis ci image yi ndax nee nañ moom moom et la été tuée elle a été agressée et tuée à la suite maanam euh, deux meeting bi nga xamante ni moom leen amaloon fële ci Kër Massar Ousmane ko teewee ko moom itam ñu rey ko ci anam yu doy waar waaw wàllu rey woowu noonu di am ci askanu Sénégal ndax jotul ñu taxaw seetlu tuuti ci defaraat sunu xol yeesalaat sunu xel yi te xam ne ñu ne neen la. gis-gis wute gis-gis dafay am ci àddina li kër yi di bari Sénégal kër gu ci nekk boo xëyee fi mu ni ak luy menu ba te benn kër du imposé kër Sénégal gi ne man li ma togg sama kër moom la kër yëpp di togg hmm? bu nu xëyee ku nekk ak na ngay solo ku nekk ak na ngay na ngay gis-gis yi ak euh, doxalin yi mën na wuute waaye la muy wuute yëpp na wuute ci lu baax waaye dañuy gis ne fi ne nii contexte politique gi ñu nekk ni ak veillu élection yi ñu nekk ni lii di ay ñaawteef dafay faral di bari kon danoo ne Sénégal jug jot na jug jot na ci lu baax dañu ciy def taxaw lu ngir yàlla rek loo xel askanu Sénégal ne léeg ma wax loo xamante ni sama gis-gis la waaye la ma ci jublu moom mooy jëmale Sénégal kanam léeg-léeg di nga gis ci forum bi wala ñuy commenté ñoo xam ne dañ lay saaga am ñoo xam ne dañ lay encouragé waaye ba nu ci jugee nu ñaanalante jàmm la vie continue ndax wuute gis-gis àddina moo demee noonu waaye nag bu mu ñu yóbbu ñuy reyee nit wala di def ay ñaawteef wax dëgg fa yàlla bu nu soñoon plus jamais ça ci askanu Sénégal li jot a xew dafa doy sëkk waaw na ñuy jàppalante ci lu baax na ñuy dimbalante ci lu baax te nuy bañ a reyante di bañ a foñante hmm? euh, ndax ndax de passage sax da ngay gis am na benn minn moo xamante ni bu ngeen demee ci xasida gu ñuy tuddee la recherche du remède bu cheikhul xaddim muy matlabul shifaa dafay wax ni yow mi bëgg a tàggale ko bépp tawat moo xam tawatu xel tawatu xol tawati yaram yaa man yoroomu dafxa kulli dahi falaatu farix matlaba shifaa waaw maanaam ô oh, toi qui veux repousser toute maladie n'oublie pas la recherche du remède man defe naa ni tey askanu Sénégal waxuma ko ngir par parloo naan duma murid ak tijaan laa wala léeg laa déedéet mu ne mbind mag moo xamante ni dafa bind ngir ñëpp ndax dafa ñaan boromam ir xam jami xal waraa muy njëriñal ñëpp bind ko ngir ma dem ak bind ko ngir ma sàmba daf ko bind pour l'humanité tu entière ñaan yàlla mu yërëm ñu ñun ñëpp kon bu bindee loo xamante ni tey war nga cee mën a dem gëstu ko waaw wàcc xal xulubana ala tawaddudi ah di ñaan yàlla ci yeesal gi sunu xol yi ak sunu xel yi dafay am léeg-léeg yu ciy doy war ndax nit matul dañuy am léeg ay moment de faiblesse seytaane mën ñu suñuy passion yi mën ñu suñuy bëgg-bëgg mën ñu waaye léeg-léeg nañuy gestu di reculer tuuti donc maa ngi recommander ñëpp ci jamono juñ toll nii ku bëggum mucc xasida googee boo ko bàyyi xel di ko jàng suba ngoon ndax nee na wa dum alayhi fil masai wa saba wa ahli santanal shifa wa fala tëjee ko julli ci yonent bi isni jaay bi isni rabbana jaal Moustapha sali rabbana ka Moustapha ah bu ko defee eh, nanu fexe rek doon benn xam ne noo bokk réew mi noo bokk Sénégal na ñuy wute gis-gis waaye bu ñuy bañante bu ñuy foñante na ñuy bëggante ndax loolu mooy pexe bi waaw ka defee lii nekkoon tënk goo xam ne rek doon contribution ci li nga xamante ni te ñun ñëpp dañ ko bokk muy tabax Sénégal jëmale réew mi kanam nuy jaale encore une fois soxna Zeynab askanu Sénégal gépp rawatina njabootam ak borom kër te itam soxna Mariam Sarr moomu nga xamante ni moo nekkoon responsable Ousmane Sonko moom tamit ak ku baax kooku saaxo di nekkoon chef douanier googu noonu leen di jaale seeni njaboot waaw leen di woon ci image yi noonu fi ñuy tëjee rek moom mooy feebaru ndeng boobu nga xam ne nee nañ dikkaat na te tàmbali na le 4 octobre bi nu ngi. wax ni 23 cas sur 400 et quelques ginnaaw bi ñu defee ay test gis nañ ko fale ca euh, booru Fatick ñuy wax askanu Sénégal ni tawat la woo xamante ne nag tawat wu jar a bàyyi xel na ndax wóorul ndax daf lay dikkee grippe ndax sax dañ koy tuddee c'est une maladie tropicale transmise par un virus mooy moustique yi nañuy moytu moytu gi li ñu koy tax a am moom mooy fagaru daa gën faju ñuy bàyyi xel kàddu médecin ci conseil yenuy joxe bu ko defee rek yàlla yàlla muccal ñu ci barke Matlabul Chifa gi ma tudd léegi di ñaan yàlla jàmm ci askanu Sénégal di ñaan yàlla jàmm ci Afrique di ñaan yàlla jàmm ci àddina di wax ni rek li ñu tax a jóg moom mooy luy jëmale réew mi kanam ci ay taxaw seetlu ci ay xalaat ndax askan wi ñun ñoo ko bokk xooluñu ku nu mere xooluñu ku nu bëgg nu ku nu bañ wax dëgg fa yàlla dee mi ngi sunu kanam yàlla na yéex yàlla na gaaw yàllaa xam waaye yàlla nañu yàlla même mu duggu rafet waaye li ma gëm mooy lii sama mban sama matadi yàlla na yem ci man waaye lu baax lu ma am te yéene ko askanu Sénégal danaa ci def taxaw seetlu sensibiliser nañ ci ndax ñun ñëpp loolu moo war a doon sunu philosophie Sénégal nag toll na foo xam ne nag xaw na doy waaye nag yàlla yàlla defal nu sutura defal nu jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ko defee di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen numéro ak la chronique du jantal maara